asalaamaaleykum mbokki Koungheul asalaamaaleykum mbokki xibaaru Bamb tey seen émission ganu Bamb ñu fi dalal ko ñuy wax Amy euh, nekk un ex de Leral balaa ñuy dugg si jotaay bi dañ koy jox kàddu gi mu daal di présenté pour que internet xibaaru Bamb mën a xam tey kan lañ dalal Amy Sow nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu di leen di ziare yéen waa xibaaru Bamb di leen di jox seen wàcc waaye di leen di remercier nag en tant que. Euh, Aminata Sow dëkk Koungheul di doomu maa na ak Ousseynou Sow. Euh, jërëjëf ndax mën nañu xam plus si euh, yow ma présentation jaar-jaar et tout quoi. waaw. mun hmm. ngeen xam sama jaar-jaar parce que kuñ ne yaay doomu maa Fasana rek loolu defe naa ay empreinte yoo xam ne la yu yu ñu fi bàyyi yoo xam ne mu ngi fi di wax à chaque fois que ne. du loo xam ne lu ñuy lu ñuy tiitaroo mais loo xam ne suñu suñuy waajur yi dañ ko fi def di sama waajur bu jigéen nekk euh, fii Koungheul nekk fi sage-femme d'État liggéey fi liggéey bu mucc ayib bàyyi fi ay empreinte yoo xam ne ba ñun ñi si loolu la ñuy dox te si loolu la ñuy yëngatu sama papa tamit nekk euh, kilifa ku nekk xam na ko bu ñu ne Ousseynou Sow moom kenn ko naataan bi parce que tey rek maa ngi waxtaan ak euh, benn kilifa sëñ Mor mooy xamal ne sama papa moo tabax. daaray sëñ Mor si moo tabax sin Matar euh, moo tabax sin Matar tabax daaray sëñ Mor si tabax jumaa Koungheul gi dispensaire bi ak yeneen ak yeneen ak ak ay école donc loolu fierté la en tant que doomu Koungheul. Mhm. lu ma booleeg média puisque dama dund social di def social am benn sociale boo xam ne dama ko jëloon héberger ko sama kër bu jugee Njum Gent. ñu dugaloon ko ci xibaaru ci Baduli après nit jël ko indil ma ko sama kër ma héberger ko defal ko social mu versé ko 2 millions ci 24 heures versé ko 2 millions ñu faj ko ba yàlla jël ko ba ko yàlla jëlee nag après ma continuer ma ne pourquoi pas man mënu def lii parce que sama yaay lu mu def mënu ko jot mais mun naa def le maximum waaw mu waral ma affection boobu daal moom ma yóbbu ci euh, sociale waaw looloo tax may def social tey ñu ngi dégg ne yaa ngi liggéey leeral. naka nga def ba dugg foofu. leeral lu tax ma dugg fa euh, yaa Cissé. Euh, mooy l'ex DG bi moom moo gis may liggéey liggéey bi mucc ay xam na ne am naa ay partenaires partout dans le monde ñoo xam ne dañ may jàppale si social bi may def mu ñëw recruter ma yóbbu ma leeral ba may dugg leeral nag ñoom ay cinq vies laa fa doon gis. moo fa doon am mais bu ma fa defee social damay tourner ba pare sama social mooy mooy faj malade yi ànd ak ñoom gunge ma ñu accompagner leen jëlee naa malade fan yóbbu ko Dantec ñu jël ko social bi jël ko faj ko toppatoo ko ba jour bi ma defee accident ci la xale bi génn àdduna puisque jour boobu lañ ko opéré finalement opération bi réussite yàlla def li gën temps yi dégg nañ coow lu bëri ci sa digganteeg leeral ndax mën nga see dellu si waat. waaw sama digganteeg leeral mun naa si dellu. parce que dama ko seq ak koo xam ne peut-être man dañ ma yar parce que kuñ ne doomu Koungheul nga rek xam ne doomu Bambou nga rek éducation mooy njëkk nekk si yow. parce que man sama problème yëpp sama prise en charge la réclamé parce que Sénégal yëpp xam nañ ne président de la République daf ñu jël en charge en charge boobu nag koy jël ñëpp dégg nañ mais su ma demee hôpital damay fay. damay fay à chaque fois may réclamer sama prise en charge ma ne comme ko président moom moo ko moo ñu jëloon en charge war nañ ma jox sama prise en charge. en charge par euh, hôpital pour pour xam nga prise en charge kenn du ko jël verbalement wax rek du jël parce que tubaab bind la xam. kenn du ko jël. Euh, kenn du ko kenn du ko jël verbalement. ma demandé ne kon nag papier yoo xam ne dañ ma ko war a fournir pour ma mën a faju ma demandé ko ne nañ ma ko jox. Euh, bañ ma ba ma ko laajtee mu génn si site bi taxaw ne ma ne ma ne moom si boppam mu ne ma da ngay arnaqué mais méttiw ma c'est parce que j'ai le second nature waaw méttiw ma bu bokkoon ci accident dama bokkoon si accident bi loolu moo waral prise en charge bi yàlla dogal ñi ma si àndaloon ñu génn àdduna ñoo ñu génn àdduna yàlla may ma ma mucc di sant suñu borom di xam ne defaluma suñu borom lu ma fi bàyyee kon su ma àndee ak ay nit ba mu yóbbu leen dama leen di ñaanal yàlla fañ jëm yàlla na leen gënal fañ jógee waaw. donc li nga coow li mooy euh, ba ngeen defee accident bi am engagement yoo xam ne nguur gi jëloon na ko surtout si wàllu prise en charge bi loolu da gisoon ne wala li ñu waroon jox wala li ñu waroon toppatooyee dafa des. Euh, waaw depuis ñu toppatoo ñu ba ñëw à Dakar bañ ñëw principal. Mm-hmm. boobu lañ ñu ci toppatoo si lan moo xew mais nag man xaw ma ne gam protocole la xaw ma nu mu demee mais nag président moom dëpp bi ñu accidenté il a fait un beau geste mais nag amul suivi suivi bi amul suivi bi amul xam nga ni muy expliquer problème décharge ma ne ko man waxuma décharge décharge ak prise en charge du benn décharge bi def naa ko deux millions cinq cent ak cinq cent mille moom mu joxoon cinq cent mille ne xolam mënatu ko may mu mu mu mu joxe ko da koy nangu ma delloo ko cinq cent mille am récupérer deux millions cinq cent yi donc man prise en charge la réclamé ak décharge du benn woo ma nag naa ma non man bu ma bëgg a aj dinaa la aj waaw lu ma def nii ba yéegal diw laay def aji saar laay def lu yéegal ko ma neexee wàcc ni ma ne ko man ak moom du ñu benn waaw man ak aji saar du ñu benn bokkuñu camp sax waaw bokkuñu camp waaw loolu moo waral coow li bëri na lool ma nekk nag doomu Koungheul nekk doomu Bambou sama yaay am lu mu def ma ne foog ma génn xamal ne nit ñi ce qui se passe. bu euh, ñu que mën nga ak yan waaw gàllankoor bi bëri na que nga nga nga mënaloon sa bopp te mënalutoo sa bopp dara gàllankoor la mais dañ koy sante suñu borom. parce que nit lu mu am rek yàlla la mënoon na demee neneen kon tey duñ réclamer gàllankoor mais dañuy sant yàlla dañuy xam ne ay jaamu yàlla lañ foog ñu am natt te suñu ñu ko tegee ba pare dañuy nangu pour pour pour dellu si leneen mais nag gàllankoor bi mu ngi fi puisque non seulement nit euh, loxo moom mooy doomu aadama tànk idem mais su su handicapé rek yow sa lu bëri day taxaw mais nag ñu ngi sant yàlla ba suñu borom bàyyi wuñu Mhm. tey gis nañ ne nekkutoo leeral lan moo ko parce que am na ñuy wax ci suuf naan affaire xaalis et tout nan lan nga mën a wax internet bi. non man man ku si nekk ku bu bu bu wax euh, bu bu bu wax dofee nopp yi koy dégg dofuñu mhm. parce que ku nekk xam nga ne man li ma wax am na fu ma ko teg lu ma wax am na fu ma ko teg mhm. man du problème mu xaalis man avant leeral dama doon dund kuy dund social si li nga am li si dimbale doomu aadama yi kon yow xaaroo leeral. leeral ba ma fay dem dama foogoon ne ñoom am nañ fuñ bëgg a jëm ba ma demee ba xam ne daam lépp lu muy def tegu ko ci yoon te man ak moom duñ ko seq waaw duñu ko seq moo tax ma ma ma wax na li muy wax nag àdduna bi tontu nañ ko tontu nañ ko parce que lu amul seede baaxul lu amul seede baaxul tey nekkutoo leeral yan mooy suñu ko projet ci yan projet nga nekk parce que tamit comme social bi nga dem daf ba ñëpp xam le ci mhm. ñu bi lan mooy nga ko pour continuer sa waaw projet yi dama koy continuer waaw tey maa ngi si moment boo xam ne maa ngi si convergence non seulement dama ñëw Koungheul pour ay taalibe yoo xam ne yu nekk si daara yi plus de trente personnes dama leen na bëgg a jongal si biir mois de septembre bii jonga leen xamal leen ne ñooñu ay doomu aadama lañ suñuy njaboot lañ si ñun lañ bokk war nañ mën a def social boobu noonu ma mais ma ne kon maa ngi tëdd mais naa ko partagé ak ñoom continuer di def liggéey boobu noonu ba di ñaan yàlla may ma si ndab képp koo xam ne rek jongal nañ la ñu ñaan yàlla nga dugg si génn si ak alhamdulilahi rabbil alamin waaw ah, sama kàddu mujj maa ngi remercier ñëpp di leen di gërëm tamit di ñaan yàlla seen sit bi fi mu bëgg a yegg yàlla na ko suñu borom yeggale si barke Maulana Cheikh Ibrahim yàlla na nekk télé yi nga xam ne ne ñëpp dégg parce que fi ngeen teg seen tànk bu leen ko dindi parce que da ngeen dëgg dëgg dëgg mooy njëkk mooy mujj dëgg mooy njëkk mooy mujj man doomu Koungheul laa li may wax ragaluma ko man fi ma jëm ragaluma ko sociale bi ma nekk ragaluma ko déjà am na contrat bu ñu ma defal mooy Kër Ndaanaan TV ci kaw lal lañ ma fekk defaral ma contrat ñu may dégg defal ma ko pour ma liggéey ak ñoom waaw une bu ñuy bu bu bu mbuur bañee rek làmbaay nangu waaw mais ñi ma soxla bëri nañ mais nag damay ñaan yàlla delloo si waat ma sama soog ba ma mën a reprendre at samay activités yi di sonn si jaamu yàlla yi loolu rek la xaaruma si nag dara ni fi ma toog nii rek ba ma commencé action bi am na ku ma envoyé xaalis pour njulli yi pour ma préparer leen donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Koungheul parce que doomu Koungheul laa daam ba mu ba mu génnee moo ñëpp la métti sax parce que ñëpp ku ma xam ak ku ma xamul yëpp métti na la parce que nit nga ngay dund dund boo xam ne nit sa yow sa nit sa sa sa bureau rek nit bu fa defee benn jour sax sa bon sax bu tëddee feebar war nga ko mën a seet si mais yooyu yëpp réclamé ma ko waaw parce que ku seetiwul ñi jaara jiwul ñu de doo seeti ki nga xam ne dafa nekk convalescence xëy na nag xelam foofu la toll mais man nag du ma ko wax dara parce que dañ maa yar waaw doomu Koungheul laa te tey war naa ne. que mën nga dellu si si loolu waaw effectivement mën naa si dellu que puisque Mayacine moom ak samay frère ñoo doon ànd moom ak sama grand frère yi ñoo doon ànd mais depuis euh, man ak ay sëram ay promotionnaire de classe lañ mais depuis ma accidenté moom dafa ñëw euh, épaulé ma wan ne ma moom doomu Koungheul la mais man non seulement doomu Koungheul la mu ne ma waxuma sax cadre politique mais damay wax pour sa wér-gi-yaram avant tout daam boo gisee sax mu bind tudd ci gouvernement bi moo tax ba ma ko attaqué ne ko toute somme à partir de vingt mille francs doit avoir une décharge képp ku nekk ci gouvernement bi bu fekkee ne yow mus nga ma jox ria wala orange money wala wéef wala nga yónni nit war na am décharge génnal nga wax ko kenn génnut kon daam li muy wax c'est assez faux amul parce que dégg na sama lien ak monsieur le ministre parce que doomu Koungheul laa doomu Koungheul la waaw taxawu ma nag su may dem hôpital mu yónnee ma oto mu ñëw jël si ma yóbbu ma hôpital lépp lu si war mu mu def ko mu dégg loolu rek commencé dugg ci ay détails mais nit nag balaa ngay wax da ngay laaj mu leer la doo ko wax parce que man ak sama frère ñoo nekkoon sama frère petit jaafara ñoo nekkoon si même kër waaw mais lépp lu mu def dama ko bàyyee ak yàlla parce que dëgg mooy njëkk mooy mujj mooy njëkk mooy mujj Mayacine loolu moo ñu boole waaw loolu moo ñu boole nag on travaille ensemble man ak moom ñu ngi liggéey parce que ubbi naa kii dugg naa ci man ak moom ñu ñu ngi liggéey daal de toute façon ubbi naa benn groupe boo xam ne c'est laissez Maya travailler on travaille ensemble ak samay jeune ñi nga xam ne ñu ngi nekk à Dakar waaw. ok merci Ami donc Ndeye Diallo Ba moom ñu dal Ami leeral te ñu ñëwoon ci accident bi nga xam ne amoon na euh, ba génnee muy journaliste yi nekkoon ci leeral te ñu daloon ko ci baat xibaaru Bambouck donc si laaj ay question vraiment di ko sant bu ko remercier di gërëm aussi internet xibaaru Bambey yëpp di leen jox dig daje beneen yoon seen émission Ganu Bambey